Që bu gjën ditë, o okay, gogë së së

Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de l'Obocaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance, faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la kg. Nous avons Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de quatre sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Obomam Diarra Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de bouteilles par heure, ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais le gaz butane reste un produit inflammable. Et parce que la sécurité est primordiale pour nous, nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également des riverains. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobo Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà de nos frontières, faisant ainsi de Lobo Mamdiara Bousso un acteur incontournable de la sous Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, l'Ogoumam Diarabusso ne cesse d'innover, de voir plus loin. bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu seetaan ci biir mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali Imran TV ci seen jataay bi muy tuddee alqalam ngeen koy am alarba jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ji ko defal si alxalam ay jataay la yoo xam ne culture bi mag ñi def ci wàllu al-lugha al def ko ci wàllu al-sharia al-islamiyya def ko ci wàllu ad-da'wa wa nasri al-islam culture boobu ci la alxalam bëgg di jëm di ci jéem nag ndax ku munta am lépp bul di xeeb li nga am te mag ñi ñooy wax ne ruq bu ne la fay ñuul moo di ñàkk moo tax bu dul lu nu jekku it bàyyi ko bañ koo def wóorut loolu moo ci dugal moo leen ci dugal waaw tabarakallahu tey mooy sun ñeenteelu daje ci téere bi nga xam ne sëriñ Cheikh mbakke Gaynde Fatma moom la bindoon tontoo ko ña ko indiwloon code de la famille tontoo leen ko waxu leen ne baaxut waxu leen tiyam ca daf leen a wax ne lii ak lii moo tax nanguwuma ko signé tey duma ko signé tey mooy suñu ñeenteelu jotaay ci téere boobu mu tudde woon ko kalimatullahi hiya al ulya kàddu yàlla gën a kawe lii ngeen ma yët ci kàddu suñ jotaay bi ñu weesu ñoo tolloon ci wasaaya rasulillahi sallallahu alayhi wa ca taraktu lakum amrayni waaw yonent bi mu ne bàyyee naa leen ñaari mbir waaw naa leen ñaari mbir ñaari mbir yooyu nga xam ne moom la ñu bàyyee di alquran ak sunnaam si Sëriñ Cheikh nee na loolu war nu koo génn di wuti ñetteelu mbir te nee na fa coow amee ak ñol-ñol ak lu métti ci penc mi mooy jéem a fa bàyyi loolu <clears throat> mu ne nag wa min al wasaaya ala hadha al maana warada min al ahadith annabawiya alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidina min baadi <clears throat> sëñ Cheikh Gaynde Fatma radiyallahu taala anhu nee bokk na ca ndénkaan ya yonent bi dénkoon xeet wi ba mu nekkee ci ñoom ñaar fukki at ak ñett di liggéey wax ak ñoom ca ajam galam wax ak ñoom dafa del si nag neleen leen eh, maa ngi leen di dënk sama sunna si maa ngi leen di bàyyee sama sunna si <clears throat> bu amee lu cay dolleeku mooy sunnatul xulafa ar-rashidin ñii ma ñii nga xam ne maa leen yar maa leen yar ba lijaasaal leen al xulafa ar-rashidun ñi nga xam ne maa leen yar ba lijaasal leen aboubacar mi lu mu wax maa ko wax lu mu def maa ko def ndax munta def lu wuuteeg li ma def munta wax lu wuuteeg samay wax ñu ne ko waaw mu ne omar mii noonu la mel ousmane mii noonu la mel ali mii noonu la mel allahu akbar suñu cheikh nee na hadis bii da koo tiim kon bu ko tiimee yonent bi wax lii ku ko indi lu wóoteeg la yonent ba wax mu delloo la la nga indi yow jël la yonent ba wax sallallahu alayhi wa sallam <coughs> allahu akbar nee na yonent bi yemu ca daf ne man ra man raxiba an sunnati fa laysa minni ah waaw ku xeeb li indi bokkatoo ku diingat li indi bokkatoo ku bañ li ma indi bokkatoo ku li indi di déranger bokkatoo mu ne sunna nag buñ ko bëggoon a jàng maa ngi yéen nee na mooy la jóge woon ci yonent ba min fiil xawl taqrir nee na ñett yi mooy bu jóge ci yonent ba sunna la xawlu wala boog fi'l mooy ay jëfam xaw la mooy ay waxam taqriir mooy lu mu fekk ñu koy jëf te waxu ca dara wala lum dégg ñu koy wax te waxu ca dara loola daal di bokk ci sunna si nee na nag alxuraan wax lu am solo ginnaaw bi yonent bi waxee lii wa man yusaqiqi rasula min bacdi ma tabayana lahu huda wa yattabi gayra sabili lmuminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa saat masira sëriñ Cheikh nee na lii da koo jàng ci alquranul karim te mi ngi ci nag te mooy jenn alquran ji moo la ñu wàcceel néew yi di ko lu ne rek alxuraan jooju la sunu borom wax ne ku fi wuuteeg yonent bi ku fi moom mu teg baaraamam ci dara ne baaxut nga teg ci sa baaraam ne baax na wala mu teg baaraam ci dara ne baax na nga teg ci ne baaxut loolu mooy shiqaaq yonent bi wax li nga wax le mbaa mu jaar ci yoon wi nga jaar ca wee mu jaar ci lef mi nga jaar ci mee mu ne même baadi ma tabayyana lawul huda bi mu ko wóoree ne lii dëgg bàyyi fa yoon woo yonent bi jaar jaar weneen yoon woo xam ne moog ñi gëm yàlla jaaruñu fa sunu borom ne aca demal nu wallihi ma tawalla nu wallihi ma tawalla waaw danañ ko booleeg lëm dumoo yu jëm waaye bu ëllëgee dama koy duma du may àdduna ak du may àllaaxira yàlla ñu musal mbokk yi seen jataay ay alxalam nekk ci téereb Sëriñ Cheikh Gaynde Fatma radiallahu taala anhu bañ ko yëtee code de la famille bii fi nekk lii la ca waxoon lii la ca waxoon waaw mu war a siiw école yi dégg ko euh, université yi dégg ko professeur yi dégg ko lii de moom moo doon taxawaayam nee na jàngaan na jeneen beneen addis beneen jeneen laaye ju bokkut ak laaye ji mooy lan fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum thumma laa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima nee na ci yi muy wane ne du ko signé yi muy wane ne daa juyoog lim yor mooy yàlla wax ci alquran ji mu ne yonent bi fala wa rabbika giñ naa ci sa borom loolu la loolu la sunu borom wax ki mu yónni woon ci nun giñ naa ci sa borom waaw mel ni ku ni giñ naa ci sama bopp mu sunu borom looy giñ mu ne laa yuminuun ngëm amul ci penc mi laa yuminuun ñi lay wax ne gëm nañ gëmuñu xata yuhakkimuuka fii ma sajara baynahum li feek fii ma sajara baynahum danañ la ci xeeb di attewoo feneen mu ne ah, mu ne gëmaguñ la ndax buñ gëmee ne li ngay atte mooy indi jàmm duñ attewu ji feneen ci yow la ñëw kon buñ la fi bàyyee di attewoo ji feneen mooy gëmuñu la gëmuñu la gëmuñu ma fala wa rabbika la yuminuun te àdduna fi ne ñu ngi dox ba jàpp ne loolu du dara loolu du àdduna ñu ngi dox jàpp ne loolu du dara mooy nit mën naa nekk taalibe bi yonent bi mais bul ko bu ko niru bu topp bu ko gëm te taalibeem nga sunu mu ne déedéet falaa wa rabbika laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fii ma shajara baynahum fii ma shajara baynahum sunu inspecteur ba ñu bokkoon ak moom nekk ca Louga a Cheikh Ahmad Tidiane Gaye almarhum radiallahu anhu ci wàllu diqa taabir yi ne ci alquranul karim su ma saa ñëw ne fii ma shajara day taxaw daal ne shajara ku ne xam na ne ab verbe la ñu ne quoi mu ne shajara tun ak garab la ñu ne waaw mu ne shajara verbe passé la shajara ñu ne waaw mu ne boo doolee tun ci kanam shajaratun mooy tekki ak garab ñu ne ko waaw mu ne dafa am benn lënkaloo ci waxinu alxuraan bu am diggante shajara ak shajaratun nee na shajara verbi bi shajaratun euh, no bi mu ne am mu ne seen diggante daa am lu fi dox ñu ne ko waaw mu ne nañ dem ci shajaratun mu ne sajaratun mooy garab mu ne garab li ko composé mooy reen yi datt bi car yi xob yi ren bi datt bi car yi xob yi ñu ne ko mu ne li tax mu ne fii ma sajara daa di jël verbe waxul fii ma waqaa wala fii xanaa jël verbe bi dem ci garab mooy li na ci garab atte foofu lay jaar Souleymane ko yàlla na ko yàlla yokk wér atte foofu lay jaar mooy benn muy dossier bu xóot ni cari garab dossier bu xóot làqu luus ni cari garab mu ne waaw mu ne yonent bi buñ la ci xeebee gëmuñu lu lu dossier xóot xóot xóot buñ la ci xeebee gëmuñu xóot ba mel ni cari garab ñu ne ko waaw Cheikh Ahmad Tidiane Gaye mu ne datt bi dattu garab moo gën a rëy ci garab ñu ne waaw mu ne su ngeen amee problème bu rëy ni dattu garab ñu naa ah, mu ne ko buñ la ci xeebee gëmuñu cey waaw waaw ñu ne ko dégg nañu wax ji mu ne ñetteel bi car yi cari garab dafa ràbbaloo bi car jëm fii bi car yëg ci kawam bi jaar ci suuf ñu ñu rànkam solo ni ngeen ko xam ci garab rek mu ne bu ngeen amee problème bu jaxasoo ni ay cari garab bi la ci xeebee gëmuñu ci mu ne bi ci tegee xobi garab dafa sew benn mu yaatu mais teewul daa sew wala mu boolee sew ak sew mu ne loolu li muy sew-sew li muy tuuti tuuti buñ la ca xeebee gëmuñu fala wa rabbika laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum moom la Serigne Cheikh Gaynde Fatma jëli indi ko ci li muy leerle penc mi ne leen moom lii moo tax siñewul code de la famille te du ko siñe waaye sunu borom nee na thumma summa laa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta maanaam képp koo atte yow yonent bi mu ñaan d'appel gëmut ah bon waaw nga atte ko ba noppi muy dem ci beneen tribunal pour ñu atte ko fo gëmut koo atte wa yusallimu taslima yow ma sa dem ci makkatal mukarrama yéen ñi demagul yàlla na ngeen dem ñi demoon yàlla nañ dellu oto bu siir sar si jaar fa police bi wàcce ñaar ñi nga xam ne ñoo ëpp ñoo siir sar wala ñett mu taxawal leen ne ku nekk yenul sa loxo kenn ku nekk ñoom la yenu sa loxo nga daal fab sa loxo yenu ci sa bopp mu ne la téye ko foofu daal doxe la gannaaw dóor la ñetti liif ñetti liif yu saf su paree na la salli ala muhammad nga daal ni allahuma salli ala sayyidina muhammad sallim mu ne demal toog fee xaar beneen oto daal di tekk ca des liif ko ñetti liif moom tam ne ko salli ala muhammad dem ca kee ne ko salli ala muhammad mu tax foofa ñuy daw surcharge <laughs> boo xoolee oto bu mu fees eh, kenn du la tax a dugg waaw ñoom yow mi ëpp ci oto bi yow la ñuy dóor lu tax ngay gis oto bi fees ba noppi ngay yëg nga ne damaa yàkkam ñoo toogal fii xaar oto te fii ba ngoon mën nga fee toog doo doo am oto ndax oto la fay romb ñoom it duñ surcharge da nga fa yàgg kon buñ la ko defete defete ko rek nga daal di bàyyi surcharge waaw moo tax njàngum daara ji am solo lool ci liy defar pénc mi sëriñ Cheikh nee na gaynde Fatma ci kalimatullahi al ulya mag ñu bari am nañu ko waaw mag ñu bari am nañu ko mu mu ne alxuraan daa wax yonent bi ne ko wa ma da ko wax jullit yi wa ma aataakum rasulu fa xusu wa ma nahaakum anhu fantahu waaw lum leen jox jël leen leen tere bàyyi leen lum leen jox jël leen lum leen tere bàyyi leen ginnaaw lum nu jox ñu jël nag moo jox sunnaam si lum nu tere nu bàyyi moonu nu tere wuuteeg sunnaam si waaw wa atiu llaha rasul wa ulil amri minkum nee na liitam alquran la topp leen te topp yonentam bi ak seeni kilifa topp leen yàlla topp leen ak seeni kilifa waxut nag topp leen yàlla topp leen topp leen seen i kilifa déedéet topp leen yàlla topp leen yonent bi ak seen kilifa dafee bañ a dugal waa ati ji ñuy tolloo ñoom ñett atiu wa atiu rasul dañuy tolloo waaye wa atiu ul amri hmm, moo tax ñu dindi wa atiu def ko ñaari yoon ci yonent ba ak yàlla bu ñetteel bi nag amul fiil wa atiu wa ulil amri minkum <coughs> seeni kilifa ulil amri it suñ borom daf caa teg minkum daf caa teg minkum waaw waaw mooy kilifa yi nga xam ne minkum ci yéen lañ bokk ilaykum ci yéen lañ tàmbalee tabarkalla ci la ñu yem moo ulil amri bu ñu koy topp dañ koy topp fii taati rasulillahi ulil amri bu ñu koy topp dañ koy topp fii taatillahi loolu moo tax amut wa atiu ulil amri ndax ñoom dañ leen di topp ci lu dëppoog la yàlla digle lu dëppoo ci li bi indi fa man amara bi maa yuwaafiqul kitaabu sunna fa taatuhu waajiba wa man amara bi bi maa yuxaalifuha fala sam'a wala taa noonu la ko noonu la ko binde nee na ku ci digle ci kilifa yi lu dëppoog la yàlla digle topp la farata la ku ci digle lu wuuteeg la yàlla digleeg yonentam nee na kooku waree su koo déglu waree su koo topp waree su koo déglu waree su koo topp dëppoog la yonente ba indi sallallahu alayhi wa sallam laa taata li maxluqin fi masiyati al xaaliq loolu la ñu jàng ca fiq yaag aqida yaag yu ni demee kenn topp ku ñu bind ba mu jural la merum ki bind hmm? kenn du topp ku ñu bind ba mu jural la merum ki bind boo demoon ci benn entreprise tey fekk fa ki nga xam ne mooy bale mu digal la lu wuuteeg li la directeur digal nga def ay ndigalam moom boo muytul weer wa balaa jeex ñu licencier la mbokk yi bind bi jeexul loolu moo doonoon suñu ñeenteelu bind ci euh, kalimatullahi hiya al ulya bi Serigne Cheikh Gaynde Fatma tontu woon gaaña ñëwoon indi leen ko code de la famille bii nekk ci réew mi tey mu ne moom lii moo taxoon siñewu ko lii moo taxoon yëmul ci siñe ko mu bind lii teg ko ca jox leen ko ñu delloo ñu ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ si di ñaan jàmm ci kër gi ak kër yu ko wër di wax ci mboolem ñuy seetaan ci biir réew bitim réew bokk na ci li doxal liggéey bi mooy abone abone partagé aimé ak commenté jërë ngeen jëf jaajëfal suñu caméra yi maan yeeg suñu technicien yi yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma tataatu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa repas soit un moment de plaisir, Lobou Mame est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans. Situé au kilomètre 18 de Rufisque à Dakar, Lobou Mame Diarra Bousso est une société sénégalaise spécialisée dans l'enfûtage et la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de collaborateurs guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de Lobogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne cessent de nous renouveler leur confiance, faisant de nous le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche permanente d'innovation et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de quatre sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Oboumam Diallo Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production de ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable. Et parce que la sécurité est primordiale pour nous, nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobo Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises faisant ainsi de Lobo Mame un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Lobo Mame ne cesse d'innover, de voir plus loin.